yes salaamaaleykum sama gars yi tur bi moo la aka Full Diab from Kankan salaamaaleykum sama gars yi salaamaaleykum sama gars yi yeah that's your boy Jats from Kankan salaamaaleykum Sam 123 salaamaaleykum Thiaroye salaamaaleykum Senegal, Salaam Alaikum, the world of hip hop. This is Medun Bai and this is Jol Jol Combatant represent ma crew Gam Khan. yëpp yëpp salaamaaleykum salaamaaleykum. yaa ngi am uh, Ibrahima aka Fayda Mike represent Gam Khan. yow crew bi boo xoolee ñu ngi ko créé en 2009 mën nañu sax foofu récréation la parce que crew bi dafa nekk crew boo xamante ne. ay crew lañu fusionné bo xolé dafa nekkoon amone crew buñu doon wowe Teg amone amoon na crew bu ñu doon woowee euh, xaatiral kàddu amoon na bokk jëm-jëm aussi gamkan mais yalla def ñun ñep ñoo bokku même secteur bi nga xamantene mom lañuy évoluer biñu commencé xamanté wara tek ben concert bo xamantene euh manam dañ koy def concert bo xam connexion lay doon mais ci biir concert boobu bi mu wesso link bi dafa gëna dafa gëna dafa gëna dajé dafa gën a daje ba après gars yi ñoo doon bokk fi ñuy répété ñooy bokk par exemple parfois nga bind sa texte keneen ki corrigé ko ainsi de suite loolu jur un jour euh, gars yi tegraay di def benn sound bu tudd kan mooy baadoola bi ñu toogee di si liggéey ainsi de suite loolu jur ñu po euh, maanaam euh, ñu def ko benn benn benn benn benn featuring featuring boobu nag def bi mu génnee par rapport au niveau de Thiaroye mu amoon fi succès kenn sunu grand yi gis ni xam nga

presque 2009 bi am na benn 2011 bi di mooy sax am na album boo xam ne bokkoon nañ si album góor mag la moo ngi si benn titre bi ñu naan Niggas yaa ngi rap après loolu ñu bokkoon si benn structure bi naan fii univers hip hop biir Thiaroye univers hip hop boobu noonu sax kur euh, sax boobu moo créé neem univers hip hop boobu noonu mu réunir tous les hip hopeurs de Thiaroye waaw participé nañ tam si benn festival euh, bi am ji hip hop bu ñu naan festival civico hip hop festival Njàmbur aussi participé nañ fa boobu ba léegi aussi

wax bi ñuy wax ak borom kaang yi pour jël fa xam-xam beneen aay bi lay wax bi ñuy wax pour dugal ko ci kaang yi maanaam def fa xam-xam quoi parce que loolu moom mooy hip hop quoi mooy ay message yoo xam ne da nga koy def yu positif yoo xam ne jëm ci askan bi loolu moom mooy firi gaam kaang si gàttal gaam ak kaang yi gaam ba def la kaang. nekk si benn projet nii. waaj a génne benn vidéo le 10 décembre. dem ñaane bañ na lu waral ñu bind titre bi. waaw dañoo gis à la veille des élections surtout ñun ñi dëkkee nii mooy si euh, banlieue bi plus particulièrement à Thiaroye Diamaguène Sicap Mbao commune boo xamante ne dafa nekk commune daal boo xam ne dafa périphérique ay quartier périphérique la ay gens yi fa nekk gars yoo xam ne ay pauvres lañ c'est des gens diminués yoo xam ne ils n'ont pas les moyens xam nga pour subvenir à leurs besoins les politiciens yi comprendre connaître loolu ñii dañuy xiif léegi veille élection yi bu jotee da ngay gis ñu ñëw fii wàccaale rek seen affaire ñëw jox ñu suñuy parents yeeg ainsi de suite xam nga gars yi ñëw jël affaire yi consommé ko pour deux jours après ñu delloowaat euh, manam si situation yi nekkoon léegi nag depuis bañ nekkee xale ba tey jusqu'à nos jours ñun loolu la ñuy gis même situation même fléau mooy continuer di dam. ñun on s'est dit que en tant que des acteurs culturels on s'est dit que ne il faut qu'il cesse quoi comment cela cesse léegi ñu ne nañ jéem a toog ñu jéem a xool nan la ñuy son boo xamante ni conscientiser la masse son boobu noonu moom moo waral titre Ndem ñaani bañ na. ñaani ba ñu sonnee dañoo bañ loolu moom moo waral nag. ñun tamitim ñu in faut nii ñu wax ak sunu sunu sunu sunu population bi wax leen ni leen il faut ñu taxaw quoi parce que tamitim foog ñaani bañ ko ñaani bañ na nag waxu cosaan la boo xam ni dafa yàgg Sénégal ñun sax fi lañ ko fekk mais ñaan bi euh, euh, ne tur bi dañ ko doon woy par rapport ak ñi nga xam dañ doon bañ noteel ñi nga xam ne dañ doon bañ euh, ku leen jàpp ay jaam comme politiciens rek ni ñuy jàppee ñun askan bi fii ñooñ lañ ko doon faral di waayal moo tax ñu utiliser ndeyam ñaane bañ na euh, pour fàttali nit ñi kane carrément kenn ku nekk sa destin yaa ko war a jëlal sa bopp en main waruñu nangu toujours politiciens yi ñëw di nax xam nga après delluwaat si ni comme ñi fi jugee bu ñu leen follee souvent dañuy wax ni Sénégal mën nañ fal mais mënuñu folli parce bu mën nañ folli mais a wax mën nañ fal parce que

on peut passer sur autre chose mon ce que nous loolu politiciens yi de 60 à nos jours nous jëm les a nous ñu jëm parce que les tax ñu je pense que loolu ce nañ ko nañ ko nañ ko ay ndax 60 ba léegi du tey ku si judd woon màgg nga lu nga mais chaque fois politique du Sénégal ñun xam nañ euh, golo golo bay baabun dundee te loolu noonu euh, war na war fi war na fi mën a jeex parce que aussi bu fekkee yow am nga indépendance 1960 ba léegi ñi nga tollooloon sax comme lu mel ni Chine wala genre ñooñu dem nañ ba dépassé la yow mënoo dépassé fenn chaque fois yow yaa ngi dem yaa ngi yaa ngi yaa nekk ni ñu koy waxatee euh, pays xaw ma lan à à voie de xawma ma émergence xaw ma ainsi de suite li nga xamante ne ñun ñëpp xam nañ ni loolu ay ay ay ay ay faux problème la te loolu li ñu si mën a génnee ne la mooy politiciens yi si boppam nañ leen si biir Il y a des jours, yoo xamante a taxaw nañ ci bëgg nañ bëgg nañ représenter askan mais possibilité pour DEFCO. si élection yi chance bu ko avons ñu changement Le Sénégal dina fa te c'est possible quoi yow seen compatriote si ay fan yi néew dinañ def teew ngir ut si waat xob yi nëbb juboo juboolu xuuloo xuuloolu récupéré baan ni soppi naj sëkk defati yoot yi gën a sérieux victime yi wone guerrier tëgg programme yi prier yéene yi ñu vérieux lakkatoo soxla yi amee fréquence yi soo xel instance yi pare maye fii politicien li mooy intelligent minorité ngalaab majorité